léegi si jamono ji ana luy xew ana kuy faatu sax ba mu jaral yenn personnalité yi jóg di dem fañ koy fekkee ni ñu koy sange ba na am foofu li ci nekk mooy euh, ñi sang xamuñ ñum doon dañuy toog rek ba wax wa jot ñu ñëpp ñëw toogandoo xamuñ sang nañ ko nañ ko war a sange xamuñu sanguñ ko te loolu xàq la yoo xam ne ki faatu da koo am ci jullit yi mu si bàyyi gannaawam am na nag lu ci gën a doy waar am na ñoo xam ne buñ faatoo dañuy tànn ñu leen di sang ñoo xam ne jàpp nañ ne mën nañ ko ñuy nit ñu tedd ñu waaj ñëw def ko nañ ko war a defee indi ko bu dul kooka moom ku doon rek baax na loolu itam jafe-jafe bu rëy la boo xam ne wala suñu see delluwaat gannaaw euh, nu ñuy sange ab néew moom euh, ñaar rek moo ci am ku góor ak ku jigéen rek waaye amul ku ñuy jur koo xam ne ñii dañ ko war a sang. wala ñi waruñu ko sànq ku faatu rek bu dee jullit la muy benn ñaareel ba góor la wala jigéen bu dee aw góor bu dee góor a faatu te ay góor nekk fa ay góor sang ko su dee aw jigéen a faatu ay jigéen am fa ay jigéen sang ko su fekkee ki faatu góor la ànd ki jigéen loolu al fiqhul islami leeral na nu jigéen ñee def ak moom su dee ay jigéeni kese su dee góor góor kese góor gu faatu ay jigéen kese ànd ak moom xam nañ lañuy def su fekkee it jenn jigéen ju ànd ak ay góor yoo xam ne daa ànd ak ñoom tu képp it wax nañ al fiqul wax na la def waaye foofu amuñu lislaam amul soxla ci ku ko jur ab jullit la waaw wala de jullit nag mag ak ndaw lay doon nuñ koy sangeeg nuñ koy sànge moom al fiqul islam nee na bu dee góor nangam lay doon bu dee jigéen nangam waaye ànd ak loolu lépp moom amuñu soxla ci kan la ak doomi kan la ak fonction ban la yore te loolu ñu ngi ko ciy seet fi mu ne nii ñu ngi ko ciy seet loolu mat naa bàyyi xel bu baax a baax a baax ki faatu jullit yi dañoo am xaq daa am xaq ci jullit yépp ñu taxaw waaye am na ñoo xam ne dañoo am alal am na ñu leen war a sàng ñu baax lañuy doon ñu xam sax mën nañ koo doon ñoo xam ne ñu ko man lañ ñu def ko nañ ko war a defe waaye bu dee faqiir moom dañ naan ku ko sang baax na rek waxtu woon lay doon ñu ne juróom benn waxtu ñu daal di fay tase rek ci toog di xaar ku ko sang baax na nuñ ko sang baax na bu ñu koy sàngit da ngay dégg ñaan juróom-ñaari juróom-ñaari mètre yi perkaal waaye déedéet kenn ku nekk la ko jot léeg-léeg nag nga gis ku joxe ci ku faatu it tiise bu cher boo xam ne ñii dund soxla nañ ko waaye moom mi koy joxe ni mu toll wala ka faatu na mu moo tax ñu di ko jox te loolu itam diine xamu ko waaye jullee ab néew it mu ëpp ay jafe-jafe am na ñoo xam ne ka leen kay tax ñuy ñëw di jullee bokk ci jullee ga yàlla na soree lool am na ñoo xam ne ka leen di yëkkati ba ñëw ci armel yi yàlla na soree lool moom waaye kenn bëgg ko saa boo leen fa gisee rek musiba am na te moo ne ñeneen ñi ci des it am nañ xaq war koo tax a jóg ndax yonent bi moo gën ñëpp sallallahu alayhi ñaata yoon la dem jullee ku mën a doon ab jullit wax na sax ne ci julleem néew fekk fañ koy sange fañ koy sànge fa ñu koy jullee fa ñu koy dence yoo xam ne benn jullit mënu ko ñàkk ci lu baax man shahida al janazata xata yusalla alayha fa lahu qiraatun wa man shahidaha xata tudfana fa lahu qiraataan qila ya rasul allah wa ma alqiraataan qaala mithlu aljabalayn alazimayn kon ab jullit it mënta toll foo xam ne fii day jomb dem di julli jullee ji ab néew lu dul rek néew ba muy doon yàlla nay soree lool ñooñu yàlla bu ñu leen di gis ci rawatina nag bu ñu demee ba war a taxaw war koo jullee bu dee ku góor la am na al fiq al fiq wax ne na fa kii ta ki koy jullee taxaw loolu yi daa ne sàmmonte wuñ moom lañ sàgganee sàng ga sàng ga ab ju léegi àgg na ci euh, bu dee ñenn ñi moom dañuy yebal benn waay rek ne ko demal taxawul ma diw toog xamuñu diw mën na ko xamuñu diw xam na ko su ko ne daa génn mu set keneen rek ña muy tànn kenn xamuñu leen tànne lu dul daal moom jëral la ko jóg am na jafe-jafe li indi lool nag mooy indi ku ne mën naa ñëw jullee lu nekk am na ku faatoo woon ci bitim réew réew yi soriwul sax Sénégal ñam faatoo ci seeni loxo fonk ko lool jóg doon mbooloo ba agsi li may wax nag jegleelu ma ko fenn rek waaye fu ne la amee fu ne la amee suñu maam xaalima jaxate sax mas na ca def bu yéeme daa ñëw cib dëkk fekk ñu jullee ab néew benn waaye ne wadd na lay ca kanam mu xool ko xool doyu ko mu ne taxaw leen ma wax leen yàlla wan na ma ci néew bii ne bii néew kenn waru koo jullee di ko wax ndànk dañ ko war a wax ca kaw waa ji na roseet ñam jotoon a jullee nag luy seen mbir léeg-léeg nga dégg ku ne law ne ku jàpput mën ngaa tiim loolu dañ ko war di weddi fi ñuy jullee ab néew di tiim yàlla bu mu bari moom itam waaye dañoo war a wax ne ku ku ku jàpput na dem jàppi ñu xaar ko léeg-léeg nga dégg it ku ne ku mënul ñaan gi na wax ne yàlla na ko yàlla yërëm lu mu ko wax baax na moom ma koy wax du bëgg ñu waxal ko loola kese dañoo war a wax ne ku mënul ñaan gi na dem jàng ko bu jógee fii am na nag ay jàmbar yoo xam ne li ñuy dem ci armeel yi par bés kenn xamul nu mu toll yàlla na leen yàlla fay lim nañ ci ay tur yoo xam ne nit ñu baree bari ci armeel lañ leen miine ñoo yàlla na yàlla may fan wu gudd ndax ña ngay liggéey ña ngay amal nit ñi njariñ ki may wax nii bañ ba mu ñëwee ba gaa yi indi ko ba taxawal ko kenn wadd rek na law ci kanam defe ne jullee ab néew moom dafa am promotion bu ci am te fekk yan bu la ndax li ci gën a fës moo yàlla kii tëdd tey ñu di ko jullee ab jullit la woon loolu ku koy wax dalaa war a wóor wala nga laajte ba ñi ko xam wax la ay firnde yu leer sab jaam la moom ku ko wax wax nga dëgg innahu abduk wa bnu abdika wa bnu amatik waaye kaana yashhadu an laa ilaha illa anta waxdaka la sharika lak wa anna sayidana muhammadan abduka wa rasuluh loolu moom responsabilité bu rëy la ku ko xam doo ci doo gis ku ne law rek nga war nga ne law dugg jullee ko soo ne it wa anta aalamu bihi minna wax nga dëgg soo ne it allahuma man axyaytahu minna fa ahyihi ala al iman ñaan ku baax wa man tawafahu minna fatawafa wala islaam it ñaan ku baax la waaye ab jullit la woon kiy jullee war naa xam ki muy jullee kum doon loolu am na jafe-jafe fi muy taxaw moom teguñ ko fenn moom bu dee jigéen fi muy taxaw bu dee góor fi muy taxaw ki may wax nii daal kabar benn kabar na cell ba yàgg mu ne asalaamaaleykum kenn ci ñu ñëwoon jóge ci dëkk ba ne ah lii de bokkut ak lañu xam ci suñu dëkk ñoom te wax na dëgg ku jàng téere bi Ibnu Asir daf koo tënk ci bayit bayit yu leer ñaari ñaari bayit wala wenn bayit furuduha takbiru arbaan dua wa niyatun salaamu sirrin tabia lu wér la léegi-léegi nga gis koo xam ne dañuy dañoo julli ba daa ñëw rek fekk kabat bu mujj bi ñu sëlmal musalmal déedéet léegi-léegi kii jullee war naa du xam góor la wala jigéen la dañ ko naan mi ngi ne rek mu jóg moo ne loolu am na ab tamit ki ñuy jullee boo xamul góor la am jigéen la te kàbbar nañ ba noppi it ko laaj kenn it am na looy wax allahumma innaha na samatu góor jigéen bokk ko waaye kii jullee war naa xam góor la wala jigéen la mag la wala ndaw la julleeg mag daa am góor ndaw am goog jigéen am googu góor am euh, su ko defee li ñuy wax nii li ci tënku lépp ku dem ci waroom xam-xam ba mu dëkk mu dana wax ko gën a leeralal am na ñoo xam ne jàmbaar lañ bu ñu jullee ba noppi rek dal néewal bit dem ñibbi seen kër waaw loolu bu ko ñëpp defoon kuy yóbbu néew bi su fekkoonte ne ku sëlmal wàññi ko dem dugg sa oto ñibbi kan moo jullee néew kan moo ko yóbbu kan moo ko yanaw dugal ko ci oto li xew li xew léegi wala jógal ko yenn ko ci kaw jaat gi kan mooy taxawe kon bari na lu ñuy bàyyi muy dem ci ay yoolu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam digg ci ku faatu te fekk bëgg àdduna kese ak rëy mooy tax nit du ko mën a taxawe lu bari di ko raw loo xam ne du am feneen fu mu ko jële fu dul fi yonent bi joxañ sallallahu alayhi wa sallam waaye suñu koy yóbbu it da gis bëgg àddina goo xam ne li yonent bi waxoon day dikk dañuy fàttali ne dañuy masa a faatu du leen yàqal seeni téléphone du leen yàqal seen jëw gu ñuy jëw nit ci armel yi euh, du leen yàqalit bu ñu waree reeree suñu waree xaqutaay xaqutaay te xamuñu ne kii ñu gunge si moom lii du ay caaxaan am na yaari xeeti dencin euh, li ma doon wax ci ñi nga xam ne ñi jëral na leen jóg ñi jaralu leen jóg it day feeñ ci bu ñuy denc dangay gis koo xam ne bàmmeelam dañ koy def li ñuy wax jallamp rek mel na pax la gas rek def ko ca daa di buñ ne ay bant ñu ne jaru ko ah kay am na ñoo xam ne su dee ñoom yaari pax lañ leen di gasal fonk ko lool indaale bant yu baax indaale ay xob yu baax léeg-léeg ñu fab aw seng wees taq indaale wax oh, yi ab jullit kay waajtaayam ko jull bu ko sangee sàng ko jullee ko indi ko ci armeel yi suul rek moo ca des ni ñuy sula jullit la lislaam xam waaye dañuy jàllamp kii nu mu gën a gaawee gën caa gaaw gën caa baax kii moom dañ koy teelu dugal ko ci teg bant yi ndànk am na sax lu may dégg ñu ko ci dàng loo xam ne loolu tam diine xamu ko dàng ko tafli ko ci bant door ca teg yunsabu alayhi labin boo ko déggee mooy buñ ko dugalee ci pax mi ba noppi ca mboq mboqal ma am na luñ ca war a teg loo xam ne suuf si du gaaw a dem ci moom waaye it am na lu doy waar loo xam ne bari nañu ko gis dañ naan la nee nañ mën nañu du sax kilifa nee na bu ñuy gas ba mu agsi ci aboom doy na déedéet am na ñoo xam ne gas ba agsi ci aboom duyu leen bàmmeel mën nañoo doon ku am jëmm koo xam ne ki boo ko ki dugalee noona li ëpp ci moom ci su ci bitti lay nekk na yem ci oom xanaa bu dee yaari pax lañuy wax pax mu jëkk mi wóom paxam ñaareel mi wóom ñu teg bantee sa kawam ko kon segg googu it am na ci biir denc dencin yi am na dëkk boo xam ne nag dana ko tudd nañuy denc dal nam xel lool ndax fii ma jaata gone jaar yépp bu ñu koy waajal magi dëkk béppay génn ak ndawam ña ñu ñëw julleeku julleeku teej ànd ak moom di def azkaar yoo xam ne boo koy teeylu léegi tey say ronkoñ dikk suñ demee it duñu yàkkamte dara li gone yi wax dañuy jël seen temps ba mu mat sëkk am na ñoo xam sax dañ naan ginnaaw denc dëkk sàngam la moom jur ngay teel dem ndax dañoo yàqub denc te noona la noonu lañ ko war a def darul mooti sëñ Mbakke Buso wax na doomam doomam nettali ko ñu bari dégg ko nee nañ bu daan mas a la ci kuy ku faatu day wax ne lu ngeen fekk ñu defal kooku lu dul denc ko rek na ngeen ko ko defalaat suñ ko dencee ba nopp it laaj leen ña ko doon denc ba xam ñu mu su dul ñam war a doon ngeen sulli ko waajalaat ko dencaat ko ndax ku desewul lu dul benn waajtaay war nañ ko koo fonkal benn bëñ ci gémmiñ lu boroom sàggan sàggan war naa mën a weex moo tax jafe-jafe bu rëy mi ngi ci ni ñuy denc suñuy néew te moo ne euh, bu yàggutoo rek ci Tuuba amoon na kilifa gu fi borom dëkk bi tegoon koo xam ne ku mësa indi néew ca moom ngay dem kooku mooy laaj ba xam am nga fi njaatige wala déet soo ne ko waaw mu yabal la ci si njaatige dama yëgal ko ko waaye du tee moom day jël responsabilité am ni ko gone a waxe waxi waxi jamono responsabilité am ba mat sëkk Euh, lam ca war def lépp da koy def su koo ko ñëwee bàyyee ko ko baax na su ko bàyyiwut mu def liggéeyam kooko tànnoon na ay sangkat yoo xam ne mën nañoo sang ku ne gaskat yu xam xibla te léeg-léeg nga dem ci armeel yoo xam ne ñañ fa dañ ci xaaj ñëw bokk fu ñu jëm ndax ñàkk ay taxaw rek bokkuñu fu ñu jëm te ñoo war a bokk fenn fu ñu jëm ginnaaw nag bi ñu ko dencee boo ñëwee xam ne bokkuñu fuñ jëm ba ñu koy denc ana nañu ko denc woon su ko defee kooka day tànn ñoo xam ne duñ fa jóge saa su ne ña nga fa ba noppi nag ñu di leen mosal li gën li gën a daw yaram mooy loolu liggéey la boo xam ne boo waxee yenn gaa yi ñu ne fardu kifaaya dong la fardu kifaaya moo gën a foor fu fardu ayin fardu kifaaya mooy laan ni koy misaale mooy kër yi sénégalais yu bari lu ëpp jenn jigéen dana fa nekk di def li ñuy wax ay ay loo togg bis bu set dana am ku jël xaalis dem wuti lu muy togg kooku moo fa wuti ñëpp loolu fardu kifaaya ñëpp mënuñoo àndoon dem bu ñëwee ba defar ko ba noppi ba ku nekk raxasu ba ci say conc boo tibbee doo koy def seex loolu mooy fardu ayn bu kenn demut marché nag loolu mooy fardu kifaaya bu kenn demut marché kenn du añ kon li ci gën a yéeme mooy dangay ngay dégg ñu denc ba noppi nga dégg ñu naan lu waaye am ca ñi taxaw ki fi faatoo am soldu dañoo war di am soldu la ñuy liggéey ñépp lañu fa nekkal mu ne su ko ñàkk liggéeyee ñooñu dañoo war ku leen gis ñeeleen am na nag ay ndaw yoo xam ne ñu farlu lañu waaye amuñu benn moyen ñu ngi fii ci Tuubaa ñu mat a bàyyi xel lañu jàng ba xam lañu war a xam mënoon a wuti lu nekk ñu ne ko fu ñukk ñëw di def ay volontaire di wax nu ñu nu ñuy sang néew yi nu ñuy denc nit ñi waaye néew nañ ci doole amuñu baat waaye yàlla na yàlla def mag ñu am aw ñam muxaddamatul xidma kon ku dégg lii nga xam ne moo fi jàll di waxe yonent bi sallallahu alayhi wa danga xam ne faatoog la ca aju du ay caaxaan dañoo war a am solde bu baax ñu tàggat leen ba nit ñi bëgg doon ay sangkati néew bëgg doon ay gaskat bëgg doon ay taxawukat ku fi faatu ci nañ koy jullee nañu koy sange nañu koy sange ak nañu koy dence ak luñ koy ñaanal léeg-léeg nga dégg ñuy joxe ñaan nañ jàng nangam nangam bu ñu defee jàng nangam bu ñu defee jàng nangam am ñu yàkkamti ndénkaan yi fay defit am na ñoo xam duñ ko xaar jëralu leen ko dañ naan dégg nañ ko ba tàyyi rek dégg nañ ko ba tàyyi mu jaay ci noppi jàll amul njariñ yonent bi sallallahu alayhi wa mas naa toog euh, mbooloo mi wër ko mu seen gas fi mu dëkkoon ak armeel yi sorewul ba léegi si ci Madina Munawwara euh, bunt bi ñuy wax baabu Jibril wala baabu salaam boo fa taxawee jàkkaarloog armeel yi baabu Jibril wala baabu salaam daa daa sarale bii moo féete nii bii féete ak armel mu séen ñu sëgg mu ñu ne mu ne ñee lu ñuy def fee ñu ne ko daa mel ne ab bàmmeel la ñuy gas mu ne ñokket jóg fazia boo ko déggee boo jàng alxuraan da nga ci dégg fa aqbalu ilayhi yazifuun zafati naam mooy na bërët gaa yi topp ca moom daawul wax dem leen ma fekk leen fa daawul wax topp leen ma waaye danaan wax ay ci leen ñu dem sallallahu alayhi wa sallam ba mu agsee ba ci bàmmeel boobee ba ñu dencee ba noppi mu njooferlu jooy jooy yu metti ba fi tiimoon ci suuf si tooy xëpp ak rongoñ mu wëlbatiku jàkkaarloo mbooloo mi ne leen bokk yi mbaa bis bi yéen koy waajal ñu ne ah kay mu ne ana nu ngeen koy waajale ñu ne ko xanaa jaamu yàlla gëm yàlla bëgg ko yeneen yonentam mu ne ah lu ci waay mën a lu ko waay mën a waajale daan la bett de loolu Sëñ Tuubaa leeraloon na ko bis xadis bu gudd la nee na lii kum dikkal loo mënoon a nekk moo xam muy lu baax wala ab safaan lu mu mën doon da nga rëcc ñu ko lu muy rëcc mu ne lu baax la muy rëcc lu teewoon mu baril ko safaan ba lu teew mu néewal ko moo tax ku ñuy wax Omar ibn Abdul Aziz danañ ko jël misaal ci yorin wu rafet daa am bis benn waaye ñëw tiim ko wax ko lu ko neex mu geesu ko ree ne ko bu dul woon yaa xiyaama ma tontu la ñu bari léebu ne nit ñi ni ragale sawara ni ñu ragale ñàkk ni ragale ñàkk ba tax kenn nangu wuti xëy toog suñu ko ragale woon sawara ñépp ay dem aljanna moo tax taxawaay yi ci ay armel lu des la te ñun ñépp fa lañ jëm te kenn ku ci nekk bëggut ñu taxawoo ko ñi muy taxawoo ñenn ñi nañuy seeti ñi wéradi buñ faatoo ñu taxawu leen ba xam sang ga baax na wala baaxut te loolu li koy maye mooy ñu taxawal ay jàngukaay yu ñuy jàngalee nuñ koy defee pratique bi ñu bari jàng nañ ko ci téere waaye mënuñu ko def bis bu accès tàggat ci ñu koy def tàggat nit ñi ci ñu ne julleeb néew moo xam góor la wala jigéen la wala mag la wala ndaw la ak nu ñuy suule nu ñuy dugaleen ci bàmmeel ak nuñ koy dence ak waaye bàyyee kuréel boo xam ne bii yéene dong lañ cay deme ak ñàkk taxe ngir luñ dunde ñu di leen sarax ñooñu kenn wóor leen sarax dañ leen a war di fay fay gu wóor te moo ne ñiy wuute armeel yi yépp kat ak sang maag sang maag jullee ga buñ leen ne woon tey diw moo fi ñëw ci dëkk bi rek ñu génne seen kaatu gaal sal ko dem ne najj ni najj day ni ko wolof yi daan waxee najj day ngañ ma ko waaye waxee nu wolof la fexe ba gis ko wax ak moom wax ak yàlla nag jot a sori moo gën a jege fuuf na naxnu aqrabu ilay min xablil warid id yatalaqa almutalaqiyaani an alchimal an alyamini wa an alchimali qacidun maa yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun atid yàlla nanu yàlla defal dégg ak topp te dimb lañu ba bis boo xamante ne denc nañ ñu ba dem ba ñu indi woon ñépp dellu yóbbaale suñu alal ndax ku ci amoon alal tey buñ dugal ko ci oto indi ko ci armeel yi buñ ko dencee ba nag moom oto bi du delluwaat oto bi day delluwaat bàyyi ko fa lam amoon na ku su ñëw ci alal ñu séddoo ko waaye bis bu loolu ñëwee bañ fay des ak suñu jëf yàlla na doon jëf joo xam ne toppante du ci am yoon ak koo xam ne dañ ko waroon a lebal ba ñuy fayante ak moom